voilà kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax ñu bàyyi la rek nga nga nga nga conclure. waaw donc euh, comme ni ñu leen ko waxee sànq ci tàmbali bi dañu am benn euh, ëtt boo xamante ne bi mu ngi tudd les amis de Serigne Mansour ay xale ay mag bokk ci nekk Sénégal nekk États-Unis nekk France nekk dans la diaspora sénégalaise nga xamante ne bi on les considère comme la quinzième région yu Sénégal donc bi ñu taxawalee loolu ñu ne taxawal ko rek di waxtaan ci politique di critiquer di suggérer doyul parce que wax dëgg neex yàlla bu yéene amee tamit balaa ñuy fay yéen dañuy fay jëf ñu ne pourquoi pas ñu bàyyi ba weeru koor comme ni ko alxuraan waxee nga xam ne dafa encouragé ngay génn ci sa ñaq ak ci sa alal di ko yóbbu ci prison yi di ko yóbbu ci ñi nga xamante ne bii dañuy dañoo nekk jirim ak ci ñi nga xamante ne bii kat dañuy laaj te ñi yàlla daf leen nattu ñaari yoon mooy benn bi caabi daf leen féete gannaaw ba pare mënuñu laaj yaa ngi dégg donc bi ñu xalaatee loolu ñu ne pourquoi pas ñu def benn sortie essayer de bouger sur le terrain social en allant vers la MAF de Liberté 6 en ce mois de à la fois béni de carême mais aussi tamit de mois de mars donc c'est un triptyque boo xamante ne bii de contexte et de prétexte loolu moo tax tey jii ñu daje fi pour am loo xamante ne bii dañ koy génn ci suñu ñax comme ni ñu ko waxee ah grâce à l'appui de beaucoup de personnes très honnêtement ñoo xamante ne bii c'est des hauts placés dans ce pays peut-être li ñuy wax tane na wala tanewul mais ils s'identifient par rapport à nous donc jël ci seen ñax jox ñu ñu boole li ñu am donc euh, indi ko. donc pour mettre ko à la disposition de la maison d'arrêt quoi te ñuy ñaan yàlla aussi tamit dans les semaines à venir pourquoi pas essayer aussi tamit d'organiser un autre ndogu parce que c'est la deuxième édition pour ne pas la troisième parce que daaw defoon nañ ko ñaari yoon nu ne comptons pas nu arrêter en si bon chemin nous allons continuer ces actions nu allons les multiplier pour que sénégalais xam nañu xam ni au-delà des critiques au-delà par exemple de nos opinions aussi tamit nous sommes appelés véritablement à contribuer naturellement pour le développement de ce pays voilà. Hmm? waaw léegi li ñu indi boo xoolee pomme la defe naa 500 kilogrammes la indi nañu oignon 500 kilogrammes ak ay multitude par exemple de pâtes macaroni spaghetti sucre. boisson gazeuse moom daal valeur marchande bi suma ma juumulee ci ay 900000 la war a toll ñu ñaan yàlla nag yàlla mi ñu kattanal ren ñu def loo xamante ne bi ñun xeeb nañ ko très honnêtement maa ngi koy wax sànq euh, caissière bi déwén ak yeneen i déwén ñuy natt ay millions di ko indi fii parce que am na yoo xamante ne bii boo ko daawul couvrir wala sa wala dalul sa mbokk doo ko xam mais ku xam prison xam ne nattu la très honnêtement voilà mu ngi noonu. inaperçu au Sénégal ñëpp ko bëgg ñëpp koy sollicité Ngoné Saliou ñu ngi lay nuyu nga ñëw ànd ak ñun ci les amis de Serigne Mansour fi nga xam ne mooy ci camp euh, ba nga dugg see ci camp bi yëg-yëg bi euh, après nga ñëw ci li nga xam ne moom la ñu indi tey. d'accord ñu may nuyu internautes yi déjà di euh, rafetlu initiative ba nga xam ne Serigne Mansour jël na ko ak déjà ñi nga xam ne àndal nañ ko mais li nga xam ne itam moom la taamu camp pénal parce que fii booy xool. Euh, ñi nga xam ne caabi daf leen féete ginnaaw ñoom ñoo fi nekk ñu nekk tam ci mois de ramadan bu ñu waxee ramadan tam ñu wax ñi nga xam ne leen war a jàppale mu nekk ay jigéen en plus euh, ñu nekk ci mois de mars ba tey ñuy célébrer li nga xam ne moom mooy la femme donc dañ koy remercier ci initiative bi nga xam ne euh, jël na ko fi di wax ñeneen itam ñu roy ci moom ba pare gën ko jàppale parce que xam nga euh, euh, première édition la am na yeneen ak yeneen yoo xam ne ngi koy xaar même bu dul Ramadan mi ngi promouvoir di xaar tam pour mën a ñëw fii jàppale ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi am na ñuy am na ñoo leen di jox waaye du doy parce que bu fekkee rek privé nañ la di liberté nekk na lu metti booy gis nit di ñëw di bokk yow teraanga dañu gis ne bu ñu la euh, caabi fettee ginnaaw ñu ci bari dañ lay boot di euh, parfois boo génnee euh, kaso am na nu ñu lay xoolee boo gisee ne nit mu ngi ñëw ci yow di la jàppale li nga xam ne as néew la mu koy boole ak yow di ko bokk ak yow déjà dalay remonter lu moral di remercier waa diaspora comme ni ko Mansour waxee ndax dañu ko jàppale damay ñaan ñu gën ko jàppale parce que booy jàppale ni da koy jàppale ci loo xam ne itam bu ko defee ñëpp ñoo koy ñoo koy bokkoo voilà ñu ngi interpellé ñëpp ñu gën koo jàppale mais déjà di rafet bu baax initiative bi nga xam def nañ ko fii waaw dafay gën a jëm kanam parce que lii la ñuy xaar ci tey jii ñun yi nga xam ne dañoo nekk di wax du rek wax ngay def mais tam di def loo xam ne eh, kenn ku ko gis du la xeeb kenn ku ko gis di ko di la naw te dinañ ci mën a tamit copier te bu ni ñu ko waxee booy koppiye da ngay lu baax eh, plateforme buy boole yamu ci di def social eh, fan la ko defee fii ci camp donc mu nekk benn mbir boo xam ne c'est à saluer merci jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu ngi fii nga xam ne moo ci euh, camp ki ñu fi dajale nag du kenn ku dul les amis de Serigne Mansour Sy moo ñu dajale fii nga xam ne mooy ci camp kenn ci ñoom moom mooy jël kàddu expliquer ñu un petit peu euh, li ñu indi fii ak lan moo tax ñu choisir fii ñu ngi leen nuyu bu baax Khadija. maa ngi leen di fay di nuyu seen internet yi euh, di leen jaajëfal si déplacement bi parce que ak koor gi moom yombul di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp parce que c'est une commune. ñëpp ci jàpp ñëpp ci bokk ñëpp am nañ ci wàll euh, ñëw fii si bërëb bi nga xamante ni c'est une grande symbolique en ce mois de de mars parce que voilà ku xam mois de mars xam ni voilà euh, mois de la femme on va pas s'arrêter à une journée euh, ñu ñëw fii euh, soutenir leen wax leen ni elles sont pas en marge de la société wax leen ni elles sont dans la société à part entière ñu mën leen dooleel mën leen jàppale à notre à, à notre à notre niveau Euh, suñu sañoon mbëbët bi dina ëpp lii waaye du yoon yemul si benn ñu jàpp ni pep pep tep tep moo gën jureet ni ñu koy waxee euh, c'est une première pour nous en tout cas les amis de Serigne Mansour qui est une plateforme qu'on a créée en 2023 les amis et sympathisants de du journaliste Serigne Mansour euh, c'est une plateforme qu'on a créée spontanément et dans le but en fait de faire du social C'est vraiment cette, euh, cette, euh, cette ambition-là qu'on a. C'est une première aujourd'hui, on continuera la semaine prochaine. On profite peut du mois de Ramadan pour ñëpp euh, am ci tiyaaba mu tas ñëpp. Et en tout cas, c'est vraiment le début en tout cas du commencement et le meilleur reste à venir. Mhm. Parce que c'est cette personne-là peut-être qui nous, rassemble. Mhm. Serigne Mansour, vous avez pu le voir il rassemble un peu tout le monde. tout le monde s'identifie un peu à lui, au message qu'il transmet, et à cette rigueur-là et à cette, euh, ce ton véridique, en tout cas qu'il a, qui fait que nous, on se reconnaît un peu en lui, et il y a une certaine affection qu'on lui porte. Nous savons bon, moom mooy rassembleur man moom taalibe laa man moom xam na ni man taalibe laa mais euh, en plus d'être cette sa taalibe on se on se on se retrouve en lui, surtout en ces périodes-là, cette période-là, on a, le Sénégal a traversé des épreuves assez douloureuses, assez difficiles, assez pénibles. Euh, on a tous besoin de s'identifier de à quelqu'un. Je parle de Seigneur Mansour, mais ça aurait pu être Naboukor, ça peut être euh, Ngone pas Ousmane là, ça peut être d'autres et d'autres et d'autres. En tout cas, tous les chroniqueurs Mais nous, en tout cas, on s'est retrouvés autour de Seigneur Mansour. Et cette plateforme s'appelle Les Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.